Info7 avance pour les réseaux sociaux. ginnaaw bi mu amalee taw yu baree bari guddik juma jàpp samedi ci dëkk bu sell bi di Touba jural ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci gox bi nga xam ne mooy ndaamaatu rawatina quartier bi nga xam ne mooy quartier Serigne Mourtala fii nag moom fi la yëf yi gën a doye waar ndaxte kat ay jàppante jote na fi am ba am ñu ci jëlee ay gaañu-gaañu askan wi nga xam ne ñooy yeewoo ci quartier bi nga xam ne mooy quartier Serigne Mourtala ñoom nag ñu ngi indi ay leeral ci li waral mbir moom mi lan moo nekkoon seen problème mu ngi fan ak lan moo nekkoon seen problème. waaw fii ñu ngi nekk Birane ñu gën kaa xam si gaara Sëñ Mourtala. quartier Sëñ Mourtala. léegi nag mooy route bi nga xam ne mooy jàpp ñaari ko ne jëm si kaw boo xoolee dañ faa def benn ab tali si gàttal depuis 2007 boo xoolee première erreur mooy defoon nañ fa ay puits d' infiltration puits d' infiltration wartu dugg si biir ab biir rawatina ab quartier. mais boo xoolee puits ni ñu ko récolté dafa dugg si biir dëkkuwaay te boo xoolee tamit pente bi ñaari pente la war a doon lu def ko benn pente boo xam dafa jëm biir euh, garas quartier garas suñu mbokk la loolu nag bi nu ko remarqué ñu xool inondation yi saa su amee ñu ëpp luñ si loolu te li tax ñuy loolu mooy ndox mi nga xam ne day daw toog tali bi te pente bi baaxul parce que kenn du sa gis ab pente ñu koy def ñu daw di dëgg dugg si ay dëkkuwaay te am na foo xam ne sax moo gën a Euh, moo gën a génn dëkk bi te yaakaar naa pant bi bu tëri bi gënoon a jóg pant bi euh, gën a jóg aussi dan amaana ndox bu dee wàcc wàcc fii te erreur bi mooy ñu def benn pant te ñaari pant la war a doon loolu nag moo waral ñi biñ gisee ne pant bii nii moo leen di jox ndox te mooy entrée bi nga xam ne li muy dugal si ndox ëpp ëpp dayoo moo taxoon nag ñu décidé parce que kenn baariwul ak guur am mbedd lan sakk te mbedd bi lu tax ñu sakk ko mooy duy duggoon ndox boo xoolee daaw ñu si ëpp màggale wuñ fi toog nan ba après deux mois doog a ñëw loolu nag bi ñu defee remarque bi ñu yaakaar ne lan mooy solution moo ñu baare fii bi ñu ko baaree fii entre la civil warut a baare civil warut a dindi te boo xoolee fii boo gisee tamit affaire la kenn ku ne am na plus supérieur lii doon yoon kooku ñun ñëpp ñoo dëkk fii li gënoon a rafet mooy danoo waroon a taaw waxtaan wut solution. est-ce que avant ngeen koy baare dem ngeen ci autorité bi bu mel ne maire wala kilifa dëkk bi pour informer leen. mais loolu def nañ ko depuis l'année mhm. def nañ daaw dem nañ fa rent bi demande ko. mais loolu gis na amul suivi quoi. lan la leen waa maire wax gis ngeen laat ka lan la leen wax. non mooy dafa waxoon ne moom <coughs> daf ñuy yónnee dix camions pour ñu def ko comme nii. ndax moom mënu fee ñëw dem nañ ci euh, chef de village bi Touba Mosquée bi lañ njëkk a ko fi nekk dem ci Touba waa Touba ci kanam ñëpp ñu dem fa mais biñu demee dañ leen dañu yónnee dix camions yi ñu xool mbedd yi dugal ndox mi ñu baare ko ñëwuñ ñëwuñ ba ñëpp di ko defal seen bopp ñun ñu defal ko seen bopp lii ñoo ko cotisé pour defal ko seen bopp waa koñ def ko ñu sëkk ko baare baare wuñ mbedd mi ndox mi la ñuy baare mhm. fii daaw téeméeri kër ak ñeent ñoo fi génn mhm. ci kër yi ci koñ bi bagage yi yàqu moom li maa leen mhm. er, er, ñëw moo tax ren nag dafa am am na ñaata kër la fi ndox mi jëlagul ren moom li fi jël li fi ndox mi jël wax dëgg yàlla li ma gum mais xamaguñ wàññeeguñ ko ndax si seen koñ bi daaw inondé avant tali bi wala avant avant tali bi noonu mosu ñoo génn mosu ñoo génn avant tali bi daawuñu inondé bi tali bi amee lañ ñan ngeen ci jotee ak ñan ngeen jàppante bi ngeen ñooñu nga xam ne ñoom benn kër génnagul ndox ma dafa taa rek ñoo ñëw ci ñun ne ñu da ngeen koy génne ndax daf ñuy baare hmm. ak tëli bii mu baare moo tax ñu ne def ñuy baare hmm. même tey jii ñu ko dindi woon li des ci ngoon si hmm. téeméeri kër yooyu ak ñeent danañ génnaat te fi mu nii li génn xam naa bu matee 40 ci la yem mais àggul foofu. Ah, mën ngaa revenir si jàmmaarloo yi fi amoon tey ci suba. Ah, waaw waaw non loolu moom damaa génnoon moo tax. fekk naa fi carrément mu fekk waaw waaw sëñ bi tur bi a la. waaw Abdou Karim waaw. waaw jàmmaarloo bi nu mu demee waaw jàmmaarloo man sama kër la ma fekk. Hmm. mais dañ woo ma dem leen diggalante man ci gàttal daal moom xam naa waa kon bi am na ñu fi gaañ ah. ñoom na xam fi gaañoon waaye man gisaguma leen hmm. waaye li wér daal mooy ñoom ñoo dikk fii ñoo taxaw ne dañuy di saaku par force seen kon lañ jóge te ñoom bokkuñu sax chef de quartier ñoom Moussa Gueye mooy seen chef de quartier ñu ngi mooy seen chef de quartier kon ñoom amuñu damaa jàpp damaa jàpp damaa quartier bële nu mu tudd ak bii nu mu tudd kër ñang la bokk fii ñaari pën la Touba Moussa sëñ Mourtala moo ko moom moo fi teg ku ñuy wax Baye Sow waaw yéen léegi réellement lan ngeen bëgg ak kan ngeen di woo appel liñ bëgg kay mooy liñ bëgg kay mooy ñu arrangé ñu nekk jàmm parce que jàmm moo gën lépp ñun jàmm rek la ñu sàpp ndox mi it kan ngeen ci interpellé président wala maire wala kan ku ñu ci may dimbali am na yaakaar ci képp ko xam si ne ci jàpp rek ñun xaaruñu kenn képp koo xam ne ku nekk civil sax te am xaalis mën mën nañu ci dimbali ñun ñu ngi ciy woo ñëpp lañ ci yema ñëpp ñëpp lañ ci yaakaar loolu rek waaw dañoo ñëwoon fii ne dañuy defal waa ngiraaneen taxaw ne loolu du am daaw biñ fi ñëwee maire taxaw na fii fii ñu baare tey taxaw na mm-hmm. gis ndox mi ni muy duggee ci koñ mm-hmm. mu ne dinañ ci wut solution mm-hmm. ba léegi bu yónnee wu wax nañ ko nag lii lépp fi xew moom yëg na ko mm. mais waxuñu ci dara mm. lii ñu ci bëgg nag mooy canal boo xam ne nii ndox mi fa lay dem ndox mi amul wutaluñ ko fu muy dem ci ko kër lay dugg mm. dañ koo war a xam ne nii fa la ndox mi dem bu tawatee ñëpp nekk seen jàmm duñ xulóog ñee ñee duñ xulóog ñee ndox mi fa muy départ dafa sori di ñëw fii. allo. Ah, xamoo loola daal ci xeer na wala xeer na wala yet wala la. Ah? xeer na wala yet wala la. moom moo ñëw ba ci ñun mu xamal la ñu ne bu ñu nekk ci jàmm waaye i doole nekk ci jàmm loolu nag xoolee kenn xamul lu muy kenn xamul soxor la kenn xamul ñoom ñëpp génn parce que fii place ndox la ndox mi day dem dañu bàyyi ndox mi mu dem ah, léegi nag am na fi am nañ fi ay boo yoo xamante ni ñi ngi fii ci booba léegi ñu leen di calmer nee nañ ne guddi guddi bu dañul tamit jaral na la seen bakkan nee na kon li ci li ci li ciy wax ci balaa loolu di am parce que fii ay responsable na fi nekk mais yéen dañ ci wax lii dañ mu dañ ndox mi jàll fa mu daan dem mu dem fa waaw loolu mooy kàddu yi mais yéen lan lan pardon une question lan moo tax que yéen bolokaw leen seen koñ mais ngeen bëgg koñ duñu boloke mbedd yi kenn wurut a boloke fenn di lor ñeneen ñun bu ñu boloke am na ñeneen ñu ko def parce que xam nañ àq ak yelleef duñu booleke fii di lor ñeneen duñu ko def mais nag comme ñoom ñoom ñoo ñëw bari ba ci ñun nañu duñu ne ci jàmm waaye yéen doo ne ci jàmm loolu lan la ñoom nee ndox mi fële la ñuy jóge seen koñ lay ah, jóge di traversé xoolal naka jekk place ndox ndox la ndox mi dafay jaar di dem jaar fii di bu sori nekkul ne fii dong lay yam de parce que instant boo xoolee fii fees na dell la. waaw ah. mais yéen yéen dem ngeen ci autorité yi ak ban appel ngeen di ci autorité kon. ci ñu war dem ñëpp dem ci ñoom. chef de quartier ñu jógee nii mooy bu ngaraaneen bi Cheikh Diop bi ñu demee léegi li mu ñu wax fa nii rek ñoo ci yow. ñu demee nii léegi li mu ñu mooy anduma ci tey anduma ci ëllëg damaa jàppoon ne sax dindi nañ comprendre nga lii la ñu wax woo na woo mu la waaw Abdou Gueye lii nag mu nekk jafe-jafe yu tar yoo xam ne askan wi yeewoo ci quartier bi nga xam ne mooy quartier Serigne Mourtala fii ci diwaanu Touba ci ngiraaneen di jànkonteel ba tax na ñuy sàkku rek ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñuy teel cee jóg Touba Mbacké Alhaji Mor Diouf Info TV